Yowaana saar juróom amoon na fu yeesu jaaroon gis fa waaju judduwaale gumba taalibeem ya laaj ko ne kilifa gi lu tax waa ji judduwaale gumba ndax bàkkaaram a ko waral walla bu waajuram yéesu tontu ne aajowul ci bàkkaaram walla ci bu waajuram waaye loolu dafa am ngir jëfi yàlla yi feeñ ci moom bëccëg lañu war a matal jëfi ki ma yónni guddi dina ñëwi goo xam ne kenn du ci mën a liggéey ci bi may nekk àddina may leeru àddina bi yeesu waxe loolu ba noppi dafa daldi tifli jaxase lor wa ak ban tey ko ci bëti gumba ga ne ko demal sëlmu ci bëti silowe silowe mi ngi tekki yónni nañu ko gumba ga daldi dem sëlmu ji dellusi di gis dëkkandoom yi ak ñi ko xame woon bu jëkk ci yalwaan naan xanaa du kii moo daan toog di yalwaan ñii naan moom la de ñee naan du moom dañoo nuroo rekk mu daldi leen ne man la de ñu ne ko lu ubbi saybët mu tontu ne ku ñuy wax yéesu moo tooyal ban tey ko ci samay bët ne ma demal sëlmu ci bëtu silowe ma dem nag sëlmu ji daldi gis ñu ne ko ana waa ji mu ne leen xamuma fu mu nekk noonu ñu daldi indil farisiyen yi nit ka gumba woon ndekete yéesu bés ba mu tooyale ban ubbi bëti gumba ga bésu noflaay woon looloo tax farisiyen ya di laajaat waa ji fu mu jaar bay gis léegi mu ne leen dafa tey ban ci samay bët mësal mujj ba fii ma nekk maa ngi gis ci noonu am ca farisiyen yi ñu naan ki def lii mënula jóge ca yàlla ndaxte toppul ndigalu bésu nooflaay bi ñeneen ñi it di wax ne nan la borom bàkkaar mën a wone yii firnde noonu ñu daldi féewaloo ci seen biir farisiyen laajaat ko gumba woon ne ko yow loo wax ci moom yow de la ubbil say bët mu ne leen yonent la yawut ya mënuñoo woon a nangu ne nit ka dafa gumba woon tey gis léegi ñu daldi woolu ji ay waajuram laaj leen ne ndax kii mooy seen doom ji ngeen ni gumba judduwaale la kon fu mu jaar bay gis léegi waajur ya tontu ne xam nañu ne daal suñu doom la te dafa judduwaale gumba waaye ni mu def léegi bay gis xamuñu ko te xamuñu it ki ko ubbil ay bëtam laaj leen ko magum jëmm la te mën naa tontul boppam ragal yawut ya nag moo taxoon waajari nit ka waxe noonu ndaxte yawut ya dañoo mànkoo woon ne képp ku seede ne yéesu mooy almasi bi ñu dàq la ca jàngu ba looloo tax waajur ya ne laaj leen ko magum jëmm la farisiyen yi dellu woowaat ku gumba woon ne ko waxal sa digganteek yàlla xam nañu ne waa joojee boroom bàkkaar la mu tontu ne xamuma ndax borom bàkkaar la am déet li ma xam daal mooy gumba woon naa te léegi maa ngi gis ñu laaj ko ne lu mu la def nu mu la ubbile say bët mu ne leen wax naa leen ko ba noppi waaye dégluwu leen ma lu ngeen bëgg ci ma di ko wax di waxaat xanaa dangeen a bëgg a nekk yéen itam ay taalibeem ci kaw loolu ñu daldi ko saaga ne ko yow yaay taalibeem nun taalibey musaa lañu xam nañu ne yàlla wax na ak musaa waaye kii xamuñu sax fu mu jóge waa ne leen loolu de doy na waar xamuleen fu mu jóge te moo ubbi samay bët xam nanu ne yàlla du déglu borom bàkkaar waaye nag dina déglu ki koy ragal tey def coobareem bi àddina sosoo ba tey mësuñoo dégg nit ku ubbi bëti gumbaak judduwaale kon nit kooke nag bu jógewul woon ci yàlla du mën a def dara ñu tontu ko ne yow ci biir bàkkaar nga juddoo ba noppi di jàngal noonu ñu dàq ko ca jàngu ba yéesu daldi yëg ne dàq nañu nit ka bi mu dajeeg moom mu ne ko ndax gëm nga doomu nit ki waaje ne ko wax ma mooy kan sang bi ba ma mën koo gëm yéesu ne ko gis nga ko ba noppi te mooy kiy wax ak yow waaje ne boroom bi gëm naa la noonu mu jaamu yéesu yéesu ne ko ate ma tax a ñëw àddina ngir ñiy gumba gis ñiy gis gumba bi pharisien ya nekkoon ak moom dégge loolu ñu ne ko xanaa kon ñu nit dañoo gumba yeesu tontu leen ne bu ngeen gumba woon du ngeen am bàkkaar waaye fii ak yéen a ngi naan nu ngi gis ci bàkkaar ngeen di dëkk